di ñaan nguur gi aussi ñu jàppale leen centre bi jàmbaar lañ ndax vraiment wàllu gàncax ñu ngi siy liggéey bëgg nañ ak état bi gën leen jox doole gën leen dooleel bëgg nañ aussi état bi wax si statut tradipraticien yi defe naa ni junjoon nañ ko ba war a defar projet de loi bi nga xam ne moo war a réglementer l'administration defe naa ni am nañ yaakaar ne xëy na njiitu réew mi loxoom dafa xaw a diis fi mu ne bu oyofee ya naa dana ko mottali am nañ yaakaar torop si moom te it xam nañ ni nii mu ko waxee dana ko dana ko dana ko defee noonu si kàttan yàlla kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam ba loolu mën a sotti ba fajkatu la fi am un statut loolu soxla nañ ko trop yàlla na ko yàlla jàppale si loolu jàppale ko si liggéeyam it jàppale ko si kolab ñi muy collaborer tey dañu ñëw si la transpiration excessive ñu koy wax hypersudation maanaam ñi nga xam ne dañuy ñaq bay bul ndax bari na ay interpellation ma jot si côté boobu ñoo xamante ne ñaq def leen sonal te bëgg nañ si ay tegtal bëgg si ay solution waaw xam nga ñaq nag lu normal la si nit ndax glandes yi koy yi sécrète ndox moomu ñu ngi leen tuddee les glandes sudoripares glandes yooyu dafa am ay zones yu ëppee mooy si tànk yi catu loxo yi poqtaan yi diggante tànk yi muy leen leen ak jëbi foofu la ñu ëppee te ñoom dañu relier wu ak yuur gi cerveau bi kon lu bees phénomène bu bees bu dal sa yaram bu ñëw sa yaram rek daf leen laal ñoom directement day laal glande yooyu bu leen laalee rek glande yi commencé sécréter sécréter ndox boobu di ko génne. Euh, moo tax soo stressé am na bu ñu stressé rek wala ñu tiit rek dañuy ñax si saa si c'est parce que phénomène boobu si yuur gi lay dal yuur gi su ko defee yëngal glande yooyu ñu commencé génne ndox moom bu ñu defee sport aussi bu ñu ñax ñax moo koy tax bu ñu tiitee ñax suñuy liggéey ñax c'est parce que glande yooyu ñooy génne kon ñax lu normal la si déet léeg-léeg nag mu ëpp léeg mu ëpp mais rôle am mooy réguler la température corporelle fexe ba sa température yaram boobu du yéeg du wàcc ndax ñax woowu moo koy réguler régulateur la lu mel ni réguler rek bu ëppee bu wàññi ko bu wàññi ko mu xaw ko yokk tuuti loolu kon lu am lu am solo la euh, ñàkk nag si nit dina gêner waaye amul vraiment benn benn benn jafe-jafe mën a jur li bon kañ mooy ñàkk ñàkk parce que am na ñoo xamante ne dañuy utiliser ay antitranspirant pour di bloquer ñax woo ba du génn mais xam nga loolu mën na jur jàngoro li war a génn ñax war a génn génne ko day am salte yu mu génn waale mais boo ko bloqué sa yaram ba génnul bu yàggee fa mu toog noonu mu jur fa jàngoro kenn xamul ndax ko leen cancer ween ni muy sosoo ak ni mu jigee poqotaan yi kenn xamul ndax li koy sos loolu sa bokk surtout que antitranspirant yooyu chlorure d'aluminium lañ koy lañ koy li koy liggéeyee te chlorure boobu mën na fàtt poor yi su ko defee ñax bi dootul génn mën na jur jàngoro ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax mag ñi nag daanañ joxe ñaari solution benn bi mooy xobu fuddën garab ñuy wax le lawsania inermis muy fuddën daana jël xob bi di ko baxal di naan kooku dafay wàññi ñax mais ki ëmb mënu ko naan jigéen boobu du naan xobu fuddën mais ki dara jotul mën na ko naan xasum daxaar euh, xasum guy guy ñu koy wax ladan soña digitara guy boo ko amee di ko baxal di naan boo da ngay jël juróomi xas yi nga baxal ko si litre ndox juróomi min nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo yooyu dafay wàññi ndox moomuy génn mais ñaq moom ala kulli alin mënul ñàkk si nit ñoo si question ni ñeen du tey ku njëkki daal ulcère la am di laaj solution wutal jinjeer ak lem boo jëlee jinjeer sa loxo ba mu fees bu dee amuloo jabet nga def ko jus si litre ndox genn wàll saa yoo lekkee ba ngay xel genn wàll kaas def su ko lem naan si kàttan yàlla lu si baax la boo amee xasum daxaarit daxaar nga wal ko mu nekk sunguf saa yoo lekkee nga tibb kudd bu ndaw ba mu raas genn wàll kaas ndox bu tàng yëngal bàyyi bi tam tey nga segg naan si kàttan yàlla dafay question mujj bi kii nee na napp moo ko sonal muy arthrose moom daal yax yi daal fu mu toll mi ngi karaj karaj yaakaar naa nag yow sa cartilage day bëgg a jeex ndax moom bruit boo ko commencé dégg rek xam ne daanaka la dis cartilage bareetul mais dañ la tiital ñaari garab muy reenu siddéem ak reenu sump sump ak siddéem bu ne ñeenti reen ngay jël mu juróom-ñetti reen nga baxal ko si liitu ndox ba mu ñor di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee si kàttanu yàlla dana la jàppale bu baax a baax ñoon tàggu fii leen jox naan du seen émission bi am jërëjëf